ci suñu jotaay bu tedd e, bi bi télé bi nekk ci jumaa ji CMT TV tudde daarul maarif al islaamiya daarul maarif al islaami e, ñu koy ànd ak waa daayira muxadamatul xidma di jiital ci siyaare bi sëriñ xaafiya mi kilifa gi di ko teg ci loxob sëñ Abdou Xaadir mi ñu àndal liggéey bi ak mbooleem technicien yi jàpp ci liggéey bi di ñaanit yàlla bàyyil ñu fi suñu kilifa gi sëriñ Mahmadul Muntaxa xafisahullah wa raa ba mboolem liggéey bi yëpp ñu ànd kook moom ci barkeb sëriñ bi di ñaanit suñu kilifa gi ci jiite daara ji sëriñ alxaaji Mbàkke Jaxate sëriñ Aas moom sàkku yelwaan ci yéen ngeen ñaanal ñu ko suñ borom gën ko fi yàggal gën ko wéral moom ak mbooleem ñi ñu bokkal liggéey bi ñëpp eh, téere tey kon ñu ngi ci ñaareelu téere bi Euh, bi nga xam ne bokk na ci ñu war a tàmbale ak ci programme bi ñu nekk ak yéen bëre di tënku ci programme bi ñuy jàngalee ci jumaa ji war ci ànd ak yéen ci mboolem téere yi nga xam ne gën naa ràññeeku ci programme bi ni ñu koy tàmbalee nii muy départ incha allah bi mooy ñaareelu téere bi ñaareelu téere bi nag mooy Jawharu Nafis Jawharu Nafis bokk ci téere yi nga xam ne sëriñ bi mu ngi ko taarifoon laata muy dem ci géej gi euh, waa Rawdu Rayaahiin euh, confirmé nañ ko ci seen seen téere bi di ko ànd ak yéen it ci mool bi nga xam ne euh, rabitatul xadimiya bi moom lay moom la def dajale ko tudd ko diwaanul ulum diwaanul ulumi diin ci xatum euh, ñaar téeméer ak ak euh, fukk ak ñett ci lañu tàmbali ak yéen gën a tënk ci mool boobu moolum ñaareel bi ba tey moom la ñuy ànd ak yéen téere bi nag fii la tàmbalee mubaarakul ibtidaa yi lii lu ñu barkeel ak tàmbalikaay la Maymuunul Intihaa yi di di lu ñu barkeel ak yemukaay eh, bismillahi bismillahi ci tudd tur yàlla lay tàmbalee ay wax sama arrahmaani kadi aji matale xewel mi def yëpp ci àdduna arrahimi kadi aji jagale xewel ji di yo sopp daal ci àlaxira eh, ginnaaw bi mu tàmbalee daan lii dees ko barkeel ci bu ñu tàmbali dara eh, barkeel ko ci ci bu dara di jeex mënees na cee jublu it salaatu salaam ak yi ñuy faral di def buñ la tàmbalee wax ci mu géntal gi ñu koy gis ci subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifuun wa salaamun alal mursaliin alhamdulillahi rabbil alamin mu loo xam ne min nañ ko ci téere sëriñ lool waaye ginnaaw ala kulli xaal ginnaaw loolu nee na eh, mi ngi tàmbalee ay waxam ci tudd tur yàlla mi nga xam ne mooy matal mooy moo matale ay yërmandeem te mooy ay xeewalam ci lépp loo xam ne bind na ko ci kaw suuf doomu aadama bi ci ëpp am xel ba eh, ka ca gën a suufee ci fa moom eh, di jagale ëllëg ay xeewalam ñi nga xam ne tàbbal na leen àjjana muy jullit yi nga xam ne ñoom ñoo ko gëmoon daal koy sopp eh, di topp ay ndigalam di bàyyi ay teram fii amaa bu dee xewal yi nag ni mu ko wax ni mu ko waxee loolu moom xaala woo man kafar même ñi weddi sax du leen di xewale bu dee nag ñi nga xam ne ñoom ñooy ñoom ñooy ñi ñuy jagal ay xewal ëllëg nag mooy ñi nga xam ne moom euh, euh, ñi nga xam ne dañ ko toppoon ci kaw diine kaw sunnatullahi yi nga xam ne moom lay jaarale ñooñu rek mooy muy jégale ba tey ni mu ko waxee ci même aaya boobu di wax naan xaaloo min duriyati yi xaala laa yanaalu aadiya zaalimin zaalimuuna yi duñ bokk ci ñi nga xam ne ëllëg ñoom la ñuy jagale kon ginnaaw mu ne wasalla yàlla na doole xewal allahu yàlla ala sayidina ci sangu suñu maanaam suñu sàng ba muhammadin te mooy muhammad nabihi may ab yonenteem wa ali ak ñaam wa saxabi ak saxaabaam wa salamata musa tasliman nga ànd ko mucc ginnaaw loolu muy julli ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam ci moom yonente bi ak i waa këram mu julli ci ñoom julli gu ànd ak ku sërmal gu ànd ak xeewal ak ak mucc mu teg ne allahuma ya bi aslih yàlla nga yéwénal ummata muhammadin xeetu muhammad sol salla yàlla doole xewal allahu yàlla alay ci moom wa salamata musal daane yow suñu borom maa ngi lay ñaan nga euh, yéwénal nga baaxal mboolem xeetu yonente bi alayhi salaatu wasalaam allahuma buur bi faru yàlla nga wuññi njàqare xan ummati muhammad walis xeetu muhammad sallallahu alayhi wa sallam ba tey mu ne ñaan suñ borom mu dindi njàqare euh, mu dindil njàqare xeetu yonente bi yëpp yëpp rek waaw njàqare jéggi leen dem feneen ful ful ful ca ñoom allahuma ya buur bi irham yàlla nga yërëm ummata muhammad mu xeetu muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñaan suñ borom it mu yërëm mbooleem xeetu yonente bépp alayhi salaatu wasalaam daane xaw na ko yow lañuy sàkk sàkku sa ndimbal yaa muhin yow aji dimbalee ji wa bikka ci yow nastahinu la ñuy sàkkoo dimbalikoo laa xaw xawla déet pexe nekk na ci bàyyi ak mooy wala xuwata déet kàttan nekk na ci jëfe ay topp illaa billahi ndara yàlla alxaliyi ma di aji kawe ci lul bérëb alxasimi ma di aji màgg ci lul jëmm ginnaaw loolu mu ne yow suñu borom yow rek la ñuy sàkku sa ndimbal yow mi nga xam ne yaay dimbalee képp ku fi am ndimbal yow yaay ka ko dimbali daan ne ko ci yow rek it yow rek la ñuy jagale ak sàkku sàkku ndimbal moom ci yow rek lañ koy jagale daan ne nag jaam bi amul menn pexe ñun nun amuñu menn pexe moo xam ne ñu ngi koy def bu fekkee ne ñi ngi bàyyi mooy ñu yàlla tare wala genn kàttan goo xam ne yore nañ ko man caa jaare bay defee ndigal li ñu suñu borom digal du dul ne pexe bi ñuy def bay bàyyi mooy yi wala kàttan gi ñu yor bay mel na ñu ngi ci topp yi yàlla moomu mooy ki ñu jox pexe yooyu ñu bàyyee mooy yàlla moomu mooy ki jox kàttan ñu jëfee topp yi daan ne suñu borom moomu nag mooy ki nga xam ne moo kawee ca fa mu kawe duñ naan dafa nekk ci béréb moo tax mu kawe waaye dafa kawe ga yàlla ci moom suñu borom moom mooy ki nga xam ne moo màgg ci lu ñu naan jëmmam moo rëy moo tax ñaan màgg waaye moo màgg màgg nga xam ne moo yàlla ca moom daan ne wax na alfaqiru aji aajowo ji jëm ci boroomam ibnu habibin ci kooku mooy doomi habibullah eh, ahmadu te turam moo di ahmad wax na ne ahmadu maa ngi sant rabbal wara eh, suñ borom yi borom bindeef yi xam dan ak cant goo xam ne yo doomu cant goog dana sax musalliyan di aji julli xalal faqihi ci aji dégg ci fiq alhaadi ka aji gindee muhammadun te kooku moo di muhammad wa kulli si tihaadi ak képp ki borom ak farlu loolu mu ne Euh, moom Serigne tubaab mi nga xam ne mooy doomu mooy doomu doomi Habibillah maanaam doomi Balla euh, bal la Xaysa la ci jublu euh, turam dëggantaan mooy Habibullah doomi doomi maam Maram Mbàkke mi ngi fi jóge atum junni ak ñaar téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom ci gàddaay gi arab yi nag daan nañ ko faral di def nit ki maamam ji nga xam ne aw santam ci la jóge sañ naa wax ne doomi kooku la loolu lu ñu miin la ci arab yi ñu koy waxe moom moomu nag mu ne mi ngi sant suñu boroom cant goo xam ne day sax ba faw di julli ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam mi nga xam ne moom euh, moom mooy ki déggoon diine ki déggoon fiq waaw euh, képp koo xam ne mas naa def benn it mas mas naa def ijtihaad ci fiq ci ci ci ci diine dafa am ñoo xam ne dañuy am niveau bu xaw a kawee ci diine ngir mën a def euh, di jël diine ji daat koy dëppale ak fi nga xam ne fi la dundum nit ñi toll ngir mën leen a génneel masala ak yi loolu nag dafa am ay xaaj yu bari la am na ñu ñu tuddee al e, mujtahid mutlaq am na ñoo xam ne maanaam seen effort yooyu ñuy def dañ koy mën a def ci lépp léppi diine loolu nag moom ñu néew a néew la ci ne ko xam xam yu tuddee am na ci ñoo xam ne nag dañuy mën a def euh, effort boobu ci wàllu masab bi ñu nekk loolu mën naa am mooy gën a bari am na nag ñoo xam ne dañ koy mën a def ci masala ci masala sàngam loolu nag moom yaatu na lool ci suñu borom xam-xam yi dañ koy gis ci ñoom Euh, mu ne moom mi ngi ñaan salaatu salaam ci yonente bi ak ak ak waa ak saxaabam ak mbooleem borom xam-xam yi nga xam ne defoon nañ ay effort yu ni mel ci diine ji euh, daan ni lii nag wa inni naka man saraftu soppi naa mooy walbati naa rek xam yi samay itte li àq di nasril axdar yi jëm ci fas weesaru axdar yi euh, alxar mi ka di sàng li koy yekkoon ngir mu nekk moom moom loolu muy fas mën a nekk tox fatandi ak may li kiliman ñel képp koo xam ne araada na mu soo ak mokkalam min ab i isaman ci doomi jamono ji muxtasiran di aju ak ngànt li ku li xewri ñeel bépp fóore zi adab kuy borom teggin xabiir naxwin di dañ kumpa ci xam-xamu naxw wa arudin ak xam-xamu arud muy xam wàllu daaj daaju wa adab ak xam-xamu sew-sewi koy tuddee littérature eh, muy mu ne eh, ginnaaw loolu mi ngi léegi nag day yëgal nit ki ne daa bëggee wëlbati nag soppi wax ji ngir rek daal di dugg direct ci li ñu tax a jóg muy euh, fas yéenee way li nga xam ne Axdar yi da ko da ko da ko taalifoon muy Weesar Axdar yi ñëpp miin nañ ko ci Sénégal ndax téere su gàtt la suñuy tàmbalee su yàlla def xabu lool ci réew mi euh, ci it mu indi ay masala yoo xam ne léeg-léegi sax mu xaw caa wet loolu loolu lu ci lu ci am solo la ci ak di ak ràññeeku ci nekk loolu leen gis yoo xam ne ci téere yu mag rek nga koy gis waaye téere yu diggu doom yi jar ci diggante bi doo ko gis ci beneen dul moom téere boobu nag la sëriñ bi bëgg euh, di di di wayaat moom la wayaat fii nekkoon lu mu teel a way loolu wax nañ ko ci jamono bi daan jàngale laata muy dem ci géej gi ci la ko wayoon daane way woowu nag dafa bëgg ngir mu neex a yomb a mokkal ci ki nga xam ne da daa daa bëgg wattu dara ci diineem ndax buñ dee wax sàkku xam mooy dañuy wax ne nit ki mënta ñàkk am na ay téere yoo xam ne dafa ko war a mokkal jàpp nañ ne téere bii ci la war a bokk mooy xam-xam bu nekk nga fexe ba mokkal ci lu mu néew néew benn matnu wala ñaari ñaari mat maanaam xaside yu gàtt yoo xam ne dañ koy tënk ba pare mbooleem day yaatal ci domaine boobee muy wax téere bii nag kon nañu jàpp ne ci yooyu la bokk sëriñ bii nag nee na di tax mu taalif ko sa bokk na ci mooy ngir mu yomb mokkal nee na nag mi ngi jégglu ci wax yi waxinam ak ay tegginam diggante ak xam Euh, képp koo xam ne yàlla jox na ko ab yar ca muy boroom xam-xam boo xam ne dañ na kumpa ci wàllu na naxwu wala mu dañ kumpa ci wàllu ni ñuy way ci arab ci daaj wala mu dañ kumpa ci wàllu sew-sew waxiinu arab ci ci ay baat kooku bu fekkee da cee gis ak loo xam ne dafa jàpp ne juute na wuute na ak na mu war a demee ma ngi ko cay doggaant ca donte ñi ngi mën a xamale ne loolu moom amu ci heure bu ci amee rek ca ka ko sotti wala ka ko ña ko doon bindaat ca ñooñu la waaye wuute na ak boo delloo ci téere cosaanam ba nga xam ne muy am mbindam doo ca fekk lu mel noonu ginnaaw loolu mu ne wasalu maa ngi ñaan nag allah yàlla rabbi yàlla may sa may saa borom alxabula ak nangu wal xawna ak ndimbal wa tawfiq ak dëppale wala usola ak wa an yakoona wa maa ngi ñaan saa borom it an yakoona mu nekk moom téere bi raaxata siqaar yi dina flaayu ndaw ñi wa man ak nga xam ne ak képp koo xam ne boo xitaaja ajowoon na loxo ñeel ko mi ne kibaari ci mag ñi sàmmaytuhoo tudde naa ko moom téere bi bii jawhari nafiis ci wurusu gànjaro wa fi àq di ci pas nasril axdari weesaru axdari ar raisi ma di kilifa ma di kilifa ga mu ne ginaaw loolu maa ngi ñaan suñu borom defal ma ci xabul loolu yaakaar naa euh, ñëpp xam nañ ne suñu borom def na ci xabul ndax ba ko taalifee ak léegi ëpp na téeméeri ba léegi nit ñi ñu ngi ciy gën a jariñu mi ngi ñaan suñu borom defal ko ndimbal ba mën ko taalif ba mu yegg loolu yaakaar naa ne ñëpp xam nañ ne ñaan Yàlla nangu na ko suñ borom defal ko ci tawfeex it loolu it ñëpp xam nañ ko ci suñu borom defal ko ci ak eggale jàpp naa fépp foo xam ne téere nit ku baax daana fa ak yit njariñul téere bi bu ma bu mënoon wax jéggi di naan jéggi na ko ginnaaw loolu it mi ngi ñaan suñ borom def téere bi ci ki nga xam ne uh, day day day day day jàng xam-xam di ko jàng it mu nekk ab noflaay ci moom loolu képp koo xam ne gis na ko it xam na ne bi nga jàngi Axdar yu pare di jàngi téere bi gis nga ne li xawoon a ñàkk leer lépp gën na koo leeral fii ci moo gën a yomb mokkal ba lu bare bëri ci ñun mokkal gi yomb na leen lool ak képp ko xam ne aajowoo na ko ci mag ñi loolu moom jàpp na ne mag ñëpp ko aajowoo sax waaw képp ko xam ne mi ngi gëstu ci wàllu diineem bu agsee ci téere bi dana xam ne lu mënta ñàkk lu mënta woon a ci moom la mu ne mi ngi ko tudd tuddalee nag yokku wurus la gën a baax ci wurusu gën caa rafet di yokku ga ca gën a taaru mu ne moom la tudde téere bi ci fas yéene ci yéen nag dajale loo xam ne axdar yu axdar yi ma nga xam ne kilifa yi fi jaaroon ci di taalif moom manees naa tudde ne moom kilifa la ca ñoom gu mag ak mooy kilifa gu mag waaw loolu mu wesaroon daal moom la sëriñ bi bëgg a dajalewaat fii daal koy fas yéenee taalif daan awalu maa njëlbeenu la nga xam ne nag awajabahu waral na ko arrahmaanu suñ borom yi aji yërëme xat xan ci lu dog xaalal mukallafi ci ci ci ci mukallaf al imaanu moom mooy al imaan nañ ci ñëw léegi muy gëm yàlla su mata maarifatu moo topp mu xam la nga xam ne yuslihu dana yéwéne bii ci loolu faraida faraidal ayni faratay jëmm ya jamian boole seen yow mi waxal nag yow mi jàng nag mu ne fanta bi na nga yow loolu nag ka xukki mi saw mi mooy lu mel ne attey koor tahaaratin ak lu mel ne attey laab salaat ak lu mel ne julli fardan ak lu mel ne ay farataam wa naflan ak lu mel ne ay naafilaam wa ka ajjin ak lu mel ne ka acc zakka ak lu mel ne azaka suma alayhi topp mu doog topp mu war ko nag topp mu doog ko waraat maanaam an yu xaafisa mi wat xalaa xuduudi rabbil xarsi ci daytalu ara borom aras mooy limite yi nga xam ne suñ borom dafa faa yemloo ak di fa tàmbaliloo suñ borom mi nga xam ne jëla màgg na wa xalaata kawe na bu ko defee wa yaqif muy taxaw xinda amrihi fas ay ndigalam ca la ko ci suñ borom digal mu koy def wanax yi ak ay tereem wan yotawu muy tuubit kullu xeynin bépp waxtu muxtarif li nga xam ci tudd maanaam di rëkkoon ay tere bàkkaam bàkkaaram di tuub di dellu li ci di jëm ci boroomam suñ su subhaanahu wa taala sellam nga min xam ne an yekkoon na njëkk muy nekk moom saa boroom saaxitan da aji sànjaxaale ci moom maanaam njëkk saa di ko mere eh, fi saman ci jamono ja mu ne li njëkk war mu kàllaf bu fekkee ne nit ki àgg na fi ñuy tuddee li suñ borom njëkk waral ci mu kàllaf nga xam ne mooy li njëkk war ci moom ak lu mën di doon mukallaf nag dañ koo tënk ci danañ ko gis ci téere yi ñëw ci kanam ndax toujours ñu ngi jéglu nag borom xam-xam yi nga xam ne du ñàkk danañ ca yem ndax dañ koo bëgg rek di ko wax waxin wu tolloog kiy jàng ba toll ci téere bi maanaam kiy doog a tàmbali bañ dugg ci détail yu koy fàttaloo li li li ñuy doog a wax wala li ñuy bëgg a waxaat moo tax ñu ci xaw a tënk tënk kuy tolloo ak niveau kiy jàng téere bi moo mukallaf dañ koy tënk rek ci eh, bu dee soxna la soxna su toll ci mën a gis règle am euh, maanaam mën a gàddu ab bu rawatina nag bu demee ba gis ab ëmb wala mu bu dee góor lay doon mu nekk góor gu gént jotee euh, isaa balaxal atfaalu minkumul xulama fal yastasinuhu euh, wala mu nekk koo xam ne yooyu yëpp bu bu amee ci moom bu yeexee feeñ ci moom mu daal di gis ne naqam suufam diggante ay poqtaani suufam gis na ci ak karaw wala mu saxee karaw yu poqtaan yu ni mel yooyu yëpp bu gënee yeexe feeñ ci moom nag ba mu am fukki at ak juróom-ñett ci takk-takk bi gënoon a sori waaye yaakaar naa ne yooyu moom balaa nit ki am fukki at ak juróom-ñett dana gis benn ci yooyu mu waxoon yooyu bu amee rek mooy toggale nañ ko ay jëf ci moom euh, am na ay jëf yu bari ci yi muy tudd ca kanam day nekk warteef ci moom comme ni mu nekkee warteef ci ñëpp loolu it danañ gis ne kon nit ki bala muy àgg foofu war na ci ay waajuram jiim ko tàmmal ay xeeti jaamu yàlla yëpp ngir bu àggee foofu euh, jëfandikoo ga daal di yomb ci moom lool buy too buy toll si juróom-ñe juróom-ñeenti at nga xam ne yu bari ci yooyu xam nañ ne du du matagun ci moom ñaari fexe ba yooyu moom mi noon bu baax ba buy am fukki benn bu ko deful sax léeg-léeg mën di ko ci bàcc bàccal ba bu demee ba mandarga yi jot ci moom nga xam ne farata doon ci doo ko ci dóor dóor gi du nekkati warteef ci yow eh, wala fitnaal gi boobaa dana fekkoon moom eh, xamoon na ko ba yaramam miinoon ko ba mu tàmmoon ak jaamu yàlla bu baax a baax yooyu nag nee na mu kàllaf nit ki bu xasee ba àgg foofu la nga xam ne warteef bu njëkk war ci moom mooy mu gëm yàlla loolu des na ko leeral ñu ngi koy topp ci beneen téere bi ci des du ñàkk da gis beneen leçon bi nga xam ne ñëw na ci sëriñ bi leeral ko ak juróom-benn xaaj yëpp def ci ay détails yoo xam ne tolloo na ak ki toll foofu lool. ginnaaw loolu nee na mooy nit ki daal di xam li nga xam ne ay jëfa ay ay ay defuwaaram ay ay faratay jëmmam ci yooyu lay mën a baaxe lu mel ne atte yi lu mel ne koor nga xam ne gis nañ ne mooy ñetteelu. position bi ginnaaw julli ak génnee asaka koor moo ca topp wala ñeenteel bi bu fekkee ne dangaa jiital saxaada bi eh, wala lu mel ne eh, laab ndax xam nañ ne bi njëkk moom mooy taxawal julli julli ginnaaw ginnaaw saxaada bi muy imaan boobu mu jiitaloon loolu it eh, li tax julli baax baax bokk na ca nga xam laab ak ya ci aju yëpp sëriñ bi dana ko leeral ci leeral na ci lu bari ci téere bi ak lu mel ne julli moom it nga xam farata yi ak sunna yi ak ni ñu ko war a defee jàngee ko ni ko war defee di ko defee noona ak li nga xam ne moom lañu tuddee ay farata yi ay farata ci nit ki li nga xam ne ay devoir la yoo xam ne ay taxawaay yoo war a taxawee la na nga ko war a taxawee ak nga xam ne ay naafile la ay ndoll ni yiw la yoo xam ne boo ko defee danay gën a tax ngay gën a mën a recherche say sa say tuyaaba ak yu ni mel ak yi nga xam ne dafa aju ci yeneen yi ci des lu mel ne eh, aj màkka ak yee ci aju yooyu nga mën koo xam Euh, ak li nga xam dafa aju ci wàllu génne asaka aj màkk moom mooy ponk bu mujj bi ci juróomi eh, asaka it moom mooy ñaareelu ponk bi ginnaaw joxe farata yi men xay su yooyu mu kàllaf bu xasee ba ay atam warte fi njëkk a war ci moom mooy mu xam yooyu ak na muy sàmmontee na muy sàmmontee ak ak yooyu bu xamee yooyu ba pare nag mu daal di fas yéenee nag xam limite fu nekk fa ko fa yàlla tàmbaliloo fa ko fa suñ borom tàmbaliloo ak fam ko fa yamloo mu bañ koo jéggi tilka xududullahi du taxtaduha di xam la ko ci yàlla digal mu koy def xam la ko ci yàlla tere mu fas yéene koy moytu di dellu di dellu ci boromam toujours di tuub ni ñu ko xamee ci tuub ni mu ni ñu ko xamee mu leere ci moom euh, bala ko boromam di di di di mere daal muy fexe nu muy delloo ci boromam ci yooyu di tàmbale fi mu war a tàmbalee di di yam fi war a yam kon loolu du ñàkk dana dañ fa mën a yemale leçon bu njëkk bi ci kii doog tàmbali eh, incha allah rabbi eh, ba beneen yoon ñu ñëwaat ak yéen ci beneen leçon bu bees eh, yaa rabbi jaalil muridina maa fi isnikal asin wa samlaj maa wajal binaa'iya binaa'a ilmi wa amalin bi sunnatin wa hilmi